waaye muñ a ngi fi jullit bu am ku mu ñàkk bu xelam demee ci bàmmeelu yonent bi war na ko muñ Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàtte activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi ci nekk et maintenant bon visionnage Assalamualaikum, mbokki internet yu Senegal 4 TV ñi ngi leen di nuyu di leen jaara di jox itam kenn ku ci nekk ci yeen sa wàccuwaay di yëkkati sunuy kàddu ci naqar di yëkkati kàddu ci tiis ci kilifa gu mag gi nga xamante ni moom la wala sax àdduna warngal kàpp ñàkk ci bëccëgu tey bi Pap malik si ibnu seydi abubakar si nekkoon doom ci ki nga xamante ni mooy sunu maam boobu di sëriñ babakar si ñu di ko jaal ci sama kaddu équipe bu sénégal ka tv di ko jaale mboolem kuy jullit nekk ci àdduna warngal kap pour rek bañ ko yemale biir sénégal nekkoon porte parole des porte parole man noonu laa ko daan faral di tudde feesoon dell itam ca palaas ba nga xam ni moom lañu ko tegoon di ñaan sunu boroom yal na xippee ji aljana yi si yal na ko sunu boroom teeru teg ko ca loxol way juróom wa di Seydi Aboubacar si mu jàllale ko ca maamam Seydi Hadji Malick Sy mu teg loxoom ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñi ngi ñaanal njaboot gi nga xam ni moom la fi bàyyi ginnaaw yàlla na ci sunu borom teg loxo yàlla na sunu boroom uutu leen boppam ca nga xam ni foofee la seen way jur woowee taxawe woon ak itam fayte woo leen fa waaye itam di delluwaat di amaat ci moom yaakaar bu baax a baax a baax a baax ndax eh, ku gis tey mbooloo mi nga xamante ni nii wàcc nañu biir ci waawan naam xëy na ñu ngi ci jafe-jafe naam sax Sénégal wala àdduna wërngal kàpp ñi ngi ci euh, mbas moo xamante ni depuis boobee ba léegi mi ngi ci biir réew mi terewul fu nekk ci àdduna fu nekk fii ci biir euh, Sénégal nit bàyyeekoon na fa ngir ñëw gu gunge si ko ci këram googee nga xamante ni fa lañ ko doon yóbbu waye tamit ñew ngir andando ak askanu senegal ci naqar ak tis bi nga xamni mom lañu yeewoo tay waye itam mom lañu yendo tay fi ci biir senegal ñu wat rek mbokk yi deglu wat ay kaddom mom mi nga xamanteni modi aji dem gi ndax itam nak wajalon na bopam waaye ci kaw waajal gu mu waajaloon boppam ba noppi doon na jéem ci ay kàddoom doon waajal ñu ne tam ngir bu demee naka lañu war a mën a taxawee waaye naka lañu war lañ ko war a mën a muñe ndax vidéo bi nga xamante ne ni déglu ngeen ko ci njalbeen gi ñu ubbi ko moom mi ngi doon jël référence ci ki nga xamante ne nii moo di Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di ñu jéem a xamal ni ndegam moom moo dem bu yeboo kenn ku ci nekk waajal sa bopp ci sama kàddu équipe bu Sénégal 4 TV ñi ngi delluwaat di ko jaalewaat àdduna ñi ngi dellu di ko jaalewaat ñi nga xamante ni nii tarixa boobee la bokkoon di tarixa Tijaaniya waaye itam di ko jaal xalif général Serigne Mansour Serigne Babacar Sy ñu ngi koy jaale bu baax a baax a baax di ko jaale itam njabootam gi mu fi bàyyi yépp waaye tamit di ko jaale mboolem ku jokk ci tarixa boobee di tarixa cheikh waaye itam di ko jaale mboolem jullit bu nekk ci senegal waaye sax jullit bu nekk ci àdduna warngal kap ñi ngi leen di tuubaat di jéggaluwaat bu baax a baax a baax mbokk yi ci kàddu yi nga xamante ne ni yëkkati nañu ko mu diis ñu lool metti lool itam ci ñun ngir ñu génne ko waye dafa fekk ni rek lu mënta ñak fo jaar faaw mu am lolu motax tax ñu yëkkati kàddu yi ngir jema andando ak yeen tiis wi jema andando ak yeen naqar wi fi ci ay loko yu senegal 4 TV ñi ngi tuubaat bu baaxa baax tay jéggal wacc kaddu yi lepp lu ci jup xam leen ni borom bi la waye lu ci dëng itam ñi ngi leen koy jéggalu ta xam ni ci sunu di la alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di wax Sénégal ñàkkati na euh, jàmbaari lislaam yoonu murit ñàkk na yoonu xaadir ñàkk na yoonu tiijaan ñàkk na wax dëgg yàlla di ñaanal sunu sëriñ bi nga xam ne moo fi jóge eh, yàlla yërëm ko oyofal suuf si koom te taax ñi ci barkeem di wax ni symbole la woon Sénégal boo xam ni boo doon déglu waxam rek yàlla kese rek nga ci yëg kon dañ koy ñaanal fi mu jëm lepp doon yi ngëneel wax dëgg yàlla eh, doon jàmbaar lislaam di sàkku si ne ko ñëpp ñaanal rek waaw ah, ndeysaan char nañ ñëpp bégee ñëpp si kontaan na di ñaanal suñu sëriñ bi suñu borom yokk ay leeram te taas na ci barkeem suñu borom teg ci ak njabootam loxo lépp lu ñu yéene àggale fa seen yoonu maam woowu ñu yóbbu ko fu kawee seen jor ci barkib Seydina Muhammad yàlla sàmm ak njabootam te aar leen te suturaal leen te yàggal saraxam ci seen loxo ci barki Seydina Muhammad di siyaar képp ku dégg suñu kàddu rek salaamaaleykum waa kër gi maa ngi leen di ziar di leen nuyu kenn ku si ne turam ak santam di leen baalu ak di leen baal yal na yàlla defal jàmm defal ñu sutura yàlla defal ñu tawféex nawet bi ñuy dugg yal nañ ci dugg ak bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin may jaale bépp jullitu yàlla bu nekk ci àddina bi rek maa ngi lay jaale ndax tey ñepp am naqar muy murit bi tiijaan bi xaadar bi laayam bi ñepp am naqar ñepp ñepp ñëpp àddina bi ñepp benn la ñepp benn la yal na ko yàlla xare àjjana te jéggal ko ay bàkkaram yóbbu ko àjjanay firdawsi ziar na leen ñeen ñepp ziar naa leen di leen baalu ak ngeen baal ma bu baaxa baax baal naa leen yeen ñepp yalla boole baal waaye muñ a ngi fi te sëñ Cheikh Tidiane si dafay faral di wax ni jullit bu am ku mu ñàkk bu xelam demee ci bàmmeelu yonent bi war na ko muñ ndax tabaarakallaahu bàmmeelu yonent bi doy na ci war jullit te yàlla dogal na ci moom li muy dogal ci ñëpp bu doon dafa am ñu muy tànn di ko dogal ci ñoom am ñu muy bàyyi yàlla am tuuma waaye rekk lépp ñëpp la ci yemale ba tax na tabaarakallaahu Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàttee activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi si et maintenant bon visionnage Sénégal 4 TV il est 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul activer activé cloche de notification bi pouvez ngir bañ tardé benn ci ay vidéo yi ni def et maintenant bon visionnage.